alternance politique bi nga xam ne am na ci atum 2024 loolee ñu bëri ba gis nañ kat dafa daal di nekk jeexital bu nga xam ne benn tabaxaat la ci li nga xam ne mooy wàllum politique dikk bu waa Pastef dikk ci li nga xam ne mooy ci nguur gi ba tax na loolee firndeel ne am na coppite yoo xam moom ca la ñuy jëm kon control bi nga xam ne moo am ci parti yi waaye tamit ci nguur gi moo ci ay formation ci patriote yi nekk acteur central ci wàllum euh, li nga xam mooy langue politique bi waaye tam loole war nañ ubbi suñu gët xool ni kat am na loo xam luy yes la tey ba ngay ñëw ñëw kon bu delluwaatee ci ndaw yi nga xam ne ñoo war ñeel wàllum tàggatu fukki at ak nii ci ay vie politique rawatina daal ci ay responsable nga xam ne am nañ fanweer juróom fukki at ñoom dañoo gën a delluwaat xale ba tax na daal lu ci mel ni kat parti socialiste PDS wala AFP wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti de gauche yu bokk ci atum 68 am na ay coppete yoo xam ne kat seen ndaw ñoo ko daal def kon PS wala PDS ñoo lu firnde la ci alliance waxi nopp waaye Macky Sall mi tam nekk bees kon lépp dañoo jàpp ne ñi nga xam ne kat ñoo ñàkk nguur gi ñoom gis nañu ne seen leadership wala seen personnalité wala seen image dañ ko daal di ñàkk indi ay coppite ci nga xam ne kat ñoom ñoo daal di am seen parti te ñoo ko daal di beesal lu ci mel ni waa PS ak Senghor waa PDS ak Abdoulaye Wade ay fekk ak Moustapha Niass ak ay parti de gauche wala APR Macky Sall ci anam yooyee daal dafa mel ni kat ay coppite am na waaye ndaw ñu bëgg rek tingóob li nga xam ne mooy seen parti bëgg mu fës ca kaw kon looleeg sax rendez boo xam ne ci atum 2022 la nar a am kon rendez-vous boo xam ne mën nañ di xew mooy Pastef daal fexe na ba daal di yoo xam ne ku ci nekk daal bàyyi ko fu ne waaye li nga xam ne kat moom la ñu war di nëbb mooy li nga xam ne tamit yàkkamti lool bëgg rek daal di suul ñi nga xam ne ñoo fi yàgg lool loole kat du baax kon jot na itam ñu mën a xool lan la def ba ay alliés mën a lëkkaloo fexe ba jamono jikat opportunité mu nekk ci wàllum taarix